dellu daal di sàkkuwaat rek maanaam mbooloo mi liggéey bi liggéeyub ñëpp la na si ñëpp tàbb muy daayira jëf-jël ànd liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ci barabam bi loolu mooy daayira bi li wax ni daayira bi nekkul daayira bu metti boo xam ne day teg kenn lu metti dañuy ànd liggéeyal Cheikh Ibra ni nu koy liggéeyale nag mooy talaata ju nekk lu waay am barkee la ko Cheikh suñu ci kenn dara lu waaye am da nga koy barkeloo Cheikh Ibra bu weer wi deewee it noonu lañu koy defee waaw ñu jaayante ko saa su parfum ba nga xamante ni si moom la ñuy def barabu Cheikh Ibra jeexee des na ko jëndiwaat tey déglu ndigal loo xam ne sëriñ bi dañu koo jox ci barab bi ñu war koo defit ñu def ko dégg nga ko léegi Baye wax na ko mbaar mu fa nekk ngeen gis ko muy mbaaru moom mu tiim njabootug Cheikh Ibrahima Fall ga nekk ca keppaar ga daayira bii ñoom ñoo ko saxoo di ko liggéey ñoo ko fa def ci ndigalal sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda ñu ngi sàkku daal ñëpp jàpp ci liggéey bi wax leen du liggéey bu yomb képp koo xamante ni si bëgg nga cee dugg mooy numéro yooyu ma joxe léegi wala sëñ Assane mii boo jokkoo ak moom dina des na la tàbbal si daara ji waaw sant nan ñëpp gërëm nañ waaw suñu Ibrahima ak Baye Cheikh nee na ñoo ngi ci biir incha allahu rabbi ak mbooleem ñëpp rek bawunu kenn liggéey bi daal liggéey bu Cheikh la kenn ku ci nekk li ma leen waxoon sànq jëlal numéro bi nga bind ci barabu Cheikh ra waaw barabu Cheikh Ibra numéro bi yaakaar naa ne téléphone bu ne war na koo am ku di Baye Fall rek numéro boobu war nga koo am saa yoo ko fàttalikoo jëfal ci Cheikh Ibra te xam ne ci moom la jëm direkt ci Cheikh Ibra Fall la tàmbalee ci la yem moo tax kon ñun moo tax ma ne Ibrahima Mbodj mii keroog ne ko ñun moom kuy dem ci aras di ñëw ak di wane xam-xam ak lépp. am na gaa yu fi nekkoon yoo xam ne yàgg nañoo wane ay xam-xam te seytaane képp la ñu àndal waaye xam-xam dëgg baatin dëgg kooku day nangul Cheikh Ibra Fall bu dee judd bu rafet Cheikh am na ko te teewul mu ñëw di jëfal borom Tuba kër ndayam ay jàngalekati alxuraan lañ kër baayam dañuy yilif kon Cheikh Ibra bokk na ci ñaari fànn waaye taxul ba léegi musta wane fànn yooyu ci kanam borom Tuba jëf rek la fay wane ndax danga naan Cheikh Ibra Ahmadou Fall Roqe yaa ko meññ maam Seyna bu Njaay ndeyam maam Seyna bu Njaay maam Balla Faagey mii way juram daara la yoroon da ko daan awu ci daara ci kon Cheikh Ibra ay way juram boroom xam-xam lañ boo demee ci kotaw baayam dafa bokk ci ñi nga xam ne daawuñ sukkal kenn wala ñuy raamal kenn moo tax waykat bi Ahmadou Baas ne ko dammel ci ay maam war ngaa amee jaam nga jaay ko jox daam sakpal dafay des sa gaa yi lay raam ñoo gën nag ak jaam ku daan amee jaam tey jox na la nos maam Abdoulaye Xaar mbaaxaan ma daan gaar yaa leen joxoon taar ak pal gu du rës xoolal nga ne Amadou Fall roqe yaa ko meññi de Cheikh Ibra ni nga ni ma lay waxee ne la Cheikh Ibra jëru koo jaay moom Cheikh Ibra xam-xam jëru koo jaay lan moo ko saf mooy liggéeyal borom Tuubaa Amadou Fall roqe ngay wax de ne roqe Njaay sayar maram ma Njaay Fatim Babacar ñii ma lay tuddal nag ku ne daa mën a yilif ba pare di ay maami Cheikh te Cheikh Ibra mosu koo puuka Amadou Fall Roqaya ko wéju moo ko meññ Roqaya Ndiaye Sayar Maram ma Ndiaye Fatim Babacar Wàq Samba Sadio Demba Njareem Mbaba Buri Njaajaan Njaay te Njaajaan Njaay dara la woon nag ci réew mi moom te Cheikh Ibra musu ko ëpp réew nga ne geneen wet ne damel ma desit faal moo meññ yore njëbi faal biraan njëbi faal ma faal biraan amar faal biraan may sa biigi kumba faal Amadou Lamine faal amar faal Saar Njaay Amadou Fall Sarr Ndiaye mooy meññi Birane Rokhaya Ahmadou ya ak Sona Ndaak Fall maam Amadou Fall Rokhaya meññiwaat Cheikh Ibra Fall ak maam Saliou Fall Cheikh Ibra bokk na fu baax Cheikh Ibra dereete garmi la yor Cheikh Ibra dereete borom doomi soxna la yor waaye mosu koo jaay ci kanam borom Touba jëf rek ñu ne ko Fall amoo bopp mu ne ah doom wax ngeen dëgg doom doom aw ma bopp nag waaye bis a ngi ñëw doom ku am bopp da nga yenu te sama bopp jox naa ko borom Touba. lii taxaw nii jumaa ji wax naa ko sànq jëfa ko taxawal de te jëf ji kenn mënu te génne Cheikh Ibra nag Cheikh Ibra taxaw Cheikh Moussa Mbacke lii taxaw kon am murit mun ta def sans mu jëf murit mun ta taxawal dara sans mu jëfal borom Tuubaa am murit mun ta taxawal dara lu dul day day futteeku liggéeyal borom Tuubaa waaw seen maam yéen ñi Cheikh Moussa Fall wax nga ko sànq de maa ngi dégg euh, sawaay di di jàng ba di ko tudd damay wax ne kenn ku Cheikh Ibra kennam kenn ku Cheikh Moustapha Fall rek doy na sëkk ñoo xam ne Cheikh Ibra amul nawle Baye Massamba Diarra Mbaye moo wax ne Cheikh Ibra Fall raw nay maasam te deefu ko jot Bamba ko sempi mu raw yaaram bi naam Fall sëñ bi dama laa bëgg a xamal ne maam yi ñii toog muy sëñ maam mbayloo borom xam-xam la woon kat mu xaddam mu mag la woon daana wax daana waxtaane bis pénc daana waxtaane lu ñëwagul te Cheikh Ibra ko jommal di waaw Cheikh Ibra ko fekk ndóob gam nekk ja jommal ko mu ànd ak moom ñëw Cees jiitu Cheikh Ibra Fall Cees fàkkal ko fa te tey xool ko tey Cheikh Ibra Fall jëf lañuy ñuy amee ci moom daal waaye du wax képp seen maam yéen ñii toog muy seenu saafa maa tuxale ci làmmiñu Baye Cheikh Kan mi ngi daaru xudóos kii xam na ko mu ne Cheikh Moussa Fall Cheikh Ibra Fall moo wax ne ñett ma indi woon jamono mooy wane sëñ Bàmba ba ko ñëpp umpalee te def na ko taxaw Cheikh Moussa Fall fa taxaw jaxwee mooy jumaa jii def na ko ñetteel ba nee na mooy indi Cheikh Moussa Fall jamono ndax góor yàlla yi sàkk woon nañ ko waaye at nuñ ko loolu moom ci làmmiñu Baye Cheikh Baye Cheikh kan laa ko toxale Baye Cheikh kan dégg naa mu wax ne dafa am ku ñuy wax Baye Ibrahima Mbóoj cinquante fan ma buur gànjaayee ko juróon moom la tuddoon li ak njàppali ñoo ko jur mu juddu di silmaxa baayam ne da koy rey ñu ne ko am na sëriñ bu ñuy dégg te ngaa dem yóbbu ko fa nee na mu boole ceeg ay nag ak ay jaam ànd ak cinquante fan ma moomu ñëw ci borom tubaab di ko jébbal bi mu ko ko jébbalee boole ca nag ya ak xar ya sëñ tubaa ne ko yóbbul jaam ñaag lépp te bàyyi ma ak moom sëñ tubaa ne ko noo tudd mu ne ko cinquante fan ma buur gànjaay sëñ tubaa ne ko tudde naa la Ibrahima Mbodj woolu Cheikh saa Fall mu Cheikh Ibra Fall daañ ne ko dénk naa la ko bis penc nag danaa la ko laaj waaw waa déglul borom tubaa nag ku toll ni borom tubaa ku muy dénk ku ku muy wóol ba di la dénk nit moom kooku mooy kan moo tax ma ne Cheikh na dafa ëpp ci gars yi Cheikh Moussa Fall rek du moroom gaañ barke borom tubaa Cheikh Moussa Fall Baye Ibrahima Mbodj nee na Cheikh Moussa jël ma yóbbu ma Thiès di ma tarbiya nee na ma nekk fa nee na ma nekk fa nee na ma nekk fa nee na ba bés ma toog ak moom nee na am ku ñëw di jàng si ma Masamba Jaara Mbay Cheikh la Fall moom ray na raw nay maasam te déefu ko jot bàmbaa ko sempi mu raw yaaram bi naam faal inna suyuuxa wa asaabu suyuuxi ma an ñooy say jaraaf nga di seef yaaram bi naam faal lakkal wilaayati bay na naasi zahiratan Sëñ Saa Fall nee na ma ne ah man de waroon na maa am ku mokkal lii ba dima ko jàngal Baay Ibrahima Mbooñ nee na ma jooy ne ko ah Fall man de waroon na ma am ay bët ba di la ko jàngal nii nee na mu ne waaye baax na danaa ko def ci yow nee na guddi jot Cheikh saa Fall taxaw ci buntu ba na ma Ibrahima Mbodj nee na ma ne Fall nee na ma ne bërét nee na keroog damaa dóor aw xët nee na ma daan nee na keroog ba ma xëyee tari naa ñeent fukki xasida ak benn ak wala fale ñu ma Samba Jaara Mbay kon kooko gaañi boo ko tegee ci làmb ji xam ne kon kii du morom kon Cheikh Ibra Fall lii mu ñu wan nag mooy jëf waxtu wi euh, gàtt na te sëñ mii war naa yëkkati kàddu moo tax xam naa dañ koy tënk rek ñoo ngi tub bu baax a baax di ñaan kàddu yi sëriñ bi gërëm ko te def ko ak jaamu yàlla guñ nangu lii lépp ak cant kepp la si si asan te naa la xamal leen si asan cant mooy li gënal yàlla ci kaw suuf te lii ak cant la boo gisee gaa yi di yëngatu damay wax ne feccum gaa yi ak feccum Cheikh Ibra bokkuñ de moo tax ma way ma wax ko ca waya ne ko Cheikh Ibra jar a feccal te fecc mépp saf dëgg nag feccal Cheikh Ibra Fall xam nga mooy lan mooy ñu bàkk Cheikh Ibra Fall nga yow dara yëngatu bokkut ak fecc mais gaa yi ñu def dégg nga dégg naa Ibrahima mii mu naan sama ndënd eh, mu wax ne Cheikh Ibrahima Fall ne ndënd yi fu ñu ko bàkkee ku ko dëkk yaakaar ne am caaxaan la waaye fa ñëwee fekk dëgg fekk fi dëgg maam Cheikh dëgg la woote de moo tax ma la Fall ak cant am solo te siensan mbaa xam nga ne Iblis moo gën a jege yàlla ñëpp Iblis dañoo wax ne foo teg sa tànk jaan mat la Iblis sëb gën a fa ab jégam kon moo dàq jaamu yàlla ñu xam nga lan moo tax ñu dàq ko dafa weddi ndigal waaye xam nga ba muy xuloog yàlla fan la mujj wala tajidu mu saakirin naa fexe ba sa jaam ñi moom duñ la sant ak cant moo am solo sëñ bi te boo demee ci xaddisu xudsi la loolu ca yàlla la jóge mu ne asukuru ibadatu min al ibadaati akramuha wa asaduha ak cant day jaamu yàlla la waaye bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne moo gën a tedd waaye moo gën a jafe Sëñ Tuubaa ne fataxta baabu sukri fi sahri safar tayyibin nafsin duna durin aw safar yàlla ubbil buntu cant yi ci biir weeru safar te lii kenn mënu koo génn ci ak cant kon ñoo ngi sant bu baax a baax sëñ Ibrahima mii nag sant nañ ci lii ngeen ko defal ndax ñun ngeen ko defal de ñun ñaar damay wax ne benn lañ de waaw euh, keroog maa maa maa ngi tooñ ne man ak moom ni ñu nekkee benn de bu ko neexoon tey tey bu sama soxna ñëwoon soxnaam ñëw bu ko neexee bu guddi jotee mu jël sama soxna dem te ma jël soxnaam dem man foofu laa toll man ci sama moom bennoo giñ bennoo ngir lan ngir Seex Ibra rek a tax nag moom mii du jug suñ kër du jug këma këram lu mu xam wax ma lu ma xam wax ko kon ñun ñaar benn lañ moo tax bis bi bi mu fi amee ab cër ma ne ko bu soobee yàlla dey danaa ca dem teew ñu ànd ko ba mu jeex takk ñoo ngi siyaare bu baax yàlla sëriñ bi gërëm kàddu yi ñoo ngi sant bu baax kilifa yi toog asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu maam Cheikh Ibrahima Fall muridul akbar asalaamaaleykum wa rahmatulahi ñoo ngi nii bu baax ak di siyaare mbokki taalibe yi teew ci barab bi waaye nuyoo boobu ak siyaar bi ñu ciy jiital cheikh Mouhamadinil Muntaqa ibnu seex Mouhamadul Bachir di ñaan yàlla sunu borom dolli ak dundam mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax damay faral di wax cheikh Mouhamadul Muntaqa ñun waa kër cheikh ma Fall mënuñu koo fay waaye nag sëriñ bi dafa amoon ku ma waxoon ci mag ñi ne ko dama am cër bu ma bëgg boo xamante ne kat mënuma koo ñàkk ne ko cër boobee kat mooy ak amuk taalibe ne ko bés a ngi ñëw kat danaa sol meneen mbubb liggéey ba jot cër boobee mbubb ma sëriñ bi sol nag liggéey ba ëpp taalibe ñëpp mooy cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye noonu la ñuy siyaare sëriñ di Fall moom sëñ Modou Fall Menda mi toog xalifa ak maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridina mu mel ni nag lu Cheikh Ibrahima Fall jaayante ak sëñ Touba Xaadimu Rasuul sëriñ bi defal nag ko ndax dane Mbàkke gis naa ne kat jël nga càng gi kon bàyyil ma féetewoo njaam gi ndax keroog ba yàlla sunu boroom joxe joxeñe yonent bi ne ko alastu bi ko mu tontu ci xaaloo bale ju jëkk ja boobee nga xam ne tuur bi yonent bi jël na ko kon la ca des mooy topp ci ginnaawam di ko tagg ak di ko liggéeyal waaye boobee mbàkke ca nga ko way muy yaa rabbana salli ala man xat ajaaba bi balaa la wax yow ma alastu awal laa ju jëkk ja xabli sawi takkallumi kon ñu ngi jaar ci buntum njaam googee di nuyu sëñ di Fall moom sëñ Modou Fall Menda di siyaare bu baaxit it Cheikh Serif Assane mi ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax a baax ndax sama diggante ak moom moom lu yàgg la te man maa ko soppal sama bopp ngir jëmmi Cheikh Ibra Fall nag ndax démb ci waxtu wi maa ngi sow waaye sëñ maam moo loo mii bi ma dégganteek moom dama ne ko lu ma jàpp dinaa ko bàyyi donte xat na ma ñëw ci bés bi ndax bés bi bu ngeen ko defoon ba gànnaar danaa leen fa fekk fekkewu ma leen fa nag en tant que Serif Assane Fall di sëtub Cheikh damaa la faa fekk en tant que Serif Assane mi ma bokkal pas-pas mu jëm ci Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina te jëf ji ngeen di jëf kat di ko jëmee ci Cheikh Ibrahima Fall mari dina boo ko jëfaloon naar ba ca gànnaar donte xelima la am ak daa booy dem danga ko yóbbaale. boo ko jëfaloon it macaam mi nga xamante ne amul lu dul benn tama bu xëyee suba dana la ko tëggal bu ngoonee mu tëggal la ko kon jëf dëgg rek a sab xorom bay Cheikh dafa wax léegi wax ju am solo muy Cheikh Ibrahima ak jëf. ndax damay faral di wax alxuraan kat li mu indi jëf daanaka indi ko sax julli te saa bu sunu borom tuddee jëf da ciy insister muy allazina na amwaalahum fi na am fi sabilillahi waaye nag sirran wa ayaanin laka bil layli wan nahaari ulaayka yarjoona tijaaratan lam taboora ñi nga xamante ne dañuy yëkkati seen alal di ko jëf ci yoonu yàlla waaye nag jëf gi du dàkk mukk nag saa bu ne dañuy jëf loolu nag mooy li ci Baay Faal yi ndax dangay yëkkati alal jëpp yóbbu ko ci kër sëriñ bi nga dem ab diir leneen ñëw wutal ko fa nga jëlaat ne danañ ko jox sëriñ bi bil layli wan naxaar yi nee na joxe gi du bëccëg rek dañuy joxe guddi di joxe bëccëg mu ne nag ñooñee ulaay ko yar joone tijaari tan lam ta wóora ñooñee kat bu ñu doon commerce ma ne ñoom perte ñu kon Cheikh Ibrahima mu Baol na diggam ak jëf lu yaatu la ndax sëñ Moussa ñaŋ wax na ne dafa am bés Cheikh Ibra woolu ko ne ko Moussa mu ne ko Fall mu ne ko ah doom bindal diine mu bind deel yaa nun mu ne ko bindal daynu mu bind yaa mu ne ko xeexee a ah doom daynu mooy bor ne ko doom diine bor la doom ndax gor su set wicc liggéey sa alal ba mu leew yëkkati ko jëf ko ci yoonu yàlla Moussa Ñang loolee budul bor luy bor mu ne ko ah Fall xaw ma ko mu ne ko doom moo boole ak sëñ bamba dafa am xakim bu nuy wax malik ibnu dinaar boo xoolee ay jëfam dangay xam ne jag jagleeg cheikh ibrahima fall baabul muridina ndax da doon aji màkka di dox ba dajak benn xale ne ko fan nga jóge mu ne ko ci moom mu ne ko fan nga jëm mu ne ko ca moom mu ne ko ana sab yóbbal mu ne ko ma nga ca moom mu ne ko ku yóbbaloo kaafiya ayn saat ku ànd ak ku doy ànd ak ku dëggal ànd ak ku taxoo say mbir waaye ànd ak ku dul jeexal yooyu yëpp nag dafa day ci sëñ Tuubaa Xaadim Rasul moo tax bi ko Cheikh Rafal gisee noppee bëgg lu dul sëñ Tuubaa kon ku am leneen jëlal te bàyyi ñoo Cheikh Rafal muy wéy ba ñoom ñaar ñu ba Kaabatu Rasul mu ne ko damaa gis ñëpp di sàbbal borom bi di wax labbayka laahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka indi alhamda wa nihmata laka wal mulku laa sharika laka yow nga boot say loxo waxoo dara mu ne ko damay bañ dal ne labayka mu ne la laa labayka wala saxdayka du ma la tontu te du ma la goreel ne ko ndax bari na ñoo xamante ni ñu ngi ñëw fii kat di aji màkka waaye bu ne labayka da leen di tontu la labayka wala saxdayka du ma leen tontu te du ma leen goreel mu ne ko ñoo kat damay bañ a bokk ci ñoom loolu jaaxal ko lool ñu dox ba daje arafa mu ne ko yow nag gënati nga ma jaaxal ndax ñépp ngi tuural borom bi deret yow nga toog rek defoo dara mu ne ko bakkan benn laa ci am muy sama bos bi daldi daanu xaaju daldi faatu loolu jaaxal Maalik lool ba mu dellusee mu dugg kaabatu rasul ngir xam jëm joojee mbiram bi mu ko laajee sunu borom mu ne ko saaba yi jiitu texel naa leen ndax seen deret kat daa daanu ci jaase yéefar yi looloo tax ñu saxit lan waaye moom jëmm ji kat bakkanam daa daanu ci jaase yi bëgg yàlla loolee nag mooy bakkanu Baay Faal yi tey bakkanu maam Cheikh Ibra kon la Cheikh Rafal doon wax ci jëzu murid daan ne wa anta lam tasxalil muridina li annahum lam yuriduna ila wajilaahi tabaraka wa taala wa xidmati rasulillahi salallahu taala alayhi wa sallam allazi wada bi anna day la tuqalaa bil warasati in xaddimahum fa si di xooxum mu baaxum ndax Cheikh nee na buleen leen ree murit yi bu leen leen kenn tasxiif ndax ñoom seen jëmm yi ak seen melokaan yi leen dong ko waral muy bëgg yàlla ak bëgg rasuulillaahi ak fas yéene liggéeyal sëriñ bi kon liggéeyal sëriñ bi lu mënta ñàkk la ci am murit ñu ñëw tuuti nag ci jësu murit ci ndénkaane yi fa Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina wax mu jëm ci murit yi maam Cheikh Ibrahima Fall nee na laysal xuwatu bi kasaratul fixli waaye innamal xuwatu man malaka nafsi wa indal adabi Cheikh Ibrahima Fall nee na doole nekk ci bari xët-xët mbaa yow ñu tooñ la kat nga mer daal ne damay fayu ñu ne ko faal lan mooy doole mu ne innamal xuwatu man malakan nafsi wa indal adabi nee na ki am doole mooy ki ngay tooñ mu jëkk ci mën a fayu waaye nag jéggale ngir jëmmi yàlla moo tax sint Tuubaa Xaadimu Rasuul dal ne kuy faje jëf mu soppeeku gaynde fàdd la kuy faje wax mu soppeeku géej nga lab ca waaye nag kuy faje muñ mu soppe ko ay kër yu yaatu ca àjjana nga dëkke ko moo tax maam Cheikh dane laysal jamilu bi xusni bi waaye nag innamal jamilu man axsana niya fi qalbihi maam Cheikh ne na ab taar du ki rafet mbubb mbaa nga rafet xar kanam ñu ne ko fàllan mooy ab taar mu ne ab taar dëgg ki ko am mooy ki rafetal yéeneem ci biir xolom te nag innamal bi binniyaati ku la gën a rafet yéene rek moo la dàq ci biir dàq la ci biti ndax damay faral di wax yéene ci biir xol bu dee du ñaaw day feeñ ci jëmm nit ki ci xar kanamam ba mën na ko yóbbee am ñaaw nga ñaaw ba mel ni Baye Cheikh mi maa nga ñaaw ba mel ni man kon loolu dafa doon lu mat a bàyyee xel waxtaan wi nag Baye Cheikh da ngaa wax lépp moo tax kàddu yi sant rek lañuy joxe wax dëgg yàlla tey tub bu baax di jéggulu mbokki murid yi fi nekk yépp di wax sëñ Assane wax dëgg yàlla bëgg na lool sunu xel sedd na lool lool te ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax te di la gërëm bu baax a baax di ñaanit lii ngay yëngu muy tur yàlla wi yàlla na la ci sunu borom defal ndam ndax kat Baye Cheikh kan nee na ma Cheikh Modou Moussa Fall danoo jële Touba yóbbu ñu njaareem waaye Cheikh kan wax na ma ne ma sëñ Modou Moustapha Fall daf ñoo jële fii Touba Fall yóbbu ñu njaareem mu ne keroog ba nu àggee ba sëñ Modou mu Fall dugg ci néeg bi nee na Sidi Karim Diop génn di tudd yàlla nee na muy sikkar ba mu yàgg sëñ Modou mu Fall dal ubbi dane ah ana ku toll foofu nee mu ne ko Fall mën na kat mën a Sidi Karim mu ne ko ah doom mbaa yàllaa tax ma ngi koy laaj ndax jëf ji yàlla tax ngeen mu ne ko waaw fal yàllaa tax de mu ne ko ah Sidi Karim xanaa xamoo la ne Ababacar Sadeex saa bu mësaan a bëgg gis rasulillahi nii ngeen di def la daan def da daan tudd yàlla Baye Basiru Mbay daal ne ko faal bu dee da nga di rasulillahi te nga noo wax ngeen mu ne ko ah du moom de waaye ku ko ameel bor sañ na la ko fay te sëñ ngun na ñankat tudd na yàlla ba Cheikh Rahim Fall woolu ko ne ko ngunda ne ko faal mu ne ko yàlla sa borom kat nee na sama jaam saa bu wéetee tudd ma ma wéet tudd ko saa bu wéttali ko tudd ma ma wéttali ko mbooloo mu gën ma ma tudde tudd ko ne ko jaam ñi bu ñuy tudd yàllakat sunu borom day yebal ay malaaka ñu ñëw ba ci ñaareelu asamaan daldi wàcc seeni laaf wërale leen ko bu ñu tuddee yàlla ba noppi dellu ci seen borom mu laaj leen lu mu leen gën a xam ne leen ah fu ngeen jóge ñu ne ko ñun dey suñu borom dafa am jaam ñu nekkoon ci kaw suuf ñoo doon tudd di la màggal mu ne ndax dan maa xam nee ñu ne ko déedéet mu ne ndax danoo xam sama safara si nee ñu ne ko déedéet mu laaj dal ne ndax buñ ko xamoon lu nuy def nee ñu ne ko xanaa gën laa jàmm te gën laa topp te gën laa ragal neen mu ne ko kon muccal naa leen ci ci barkeb tur yàlla wa dal ne ndax danoo xam sama ajjana yi ñu ne ko déedéet mu ne buñ ko xamoon nu nuy def mu ne ko gën laa jàmm te gën laa topp gën laa ragal nee mu ne kon may naa leen ko kon turu yàlla mooy credo Baye Fall mooy ruu Baye Fall te yonent bi kat nee na waskurullah hatta yaquunul munafiquuna annakum murauna nee na dee leen tudd yàlla ba naafeq yaakaar da ngeen di gisal moo tax da ngay gis bu gaa yi tàmbalee tudd yàlla nga gis ku taxaw ci wet gi tàmbal di waxe wax te xamuñu ne kookee da nga koy taxeer rek da koy dimbali rek asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu salaamaaleykum wa rahmatullahi sëriñ bi nee na salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi fi teew yëpp nee na mbokki taalibe yi fi teew yëpp mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax mi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaare di leen ziyaare di jox seen wàccuwaay di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi nag nee di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi sëriñ Jili Mbàkke mi sëriñ jiili Mbàkke mi mu sëriñ Saalihu mu sëriñ mu sëriñ Moodu Busa Jeng mu sëriñ Moodu Busa Jeng doon sunu sëriñ nee na doon sunu sëriñ doon sunu jar doon jarbaatam nee na ñu ànd ak moom ak sëriñ di Faal mii ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp rek nee na moo ngi sant bu baax a baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne jaar na fi yëpp rek nee di sant Serif Assane bu baax cant goo xamante ni si am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem moom nee na ndax liggéey bu mel nii képp koo xamante ni si yaa ngi ji di xalaat di xalaat di xalaat ba am xelam daj ba am xelam daj ko mu dugal ñu ci mu dugal leen ci ah, nee na ngi lay sant bu baax Serif li ma ko wax fii léegi rek nee na li la wax fii léegi rek waxuma la bokk gin bokk de waxu nee waxul bokk gi nga xam ne moom ngeen bokk ak maanaam sët gi mu doon ci Cheikh Ibra ak sët gi nga xamante ne si moom nga doon ci Cheikh ra waaye ak yaram waaye ak sag yar ak ay tegginam ak ay tegginam tax na de nee na tax na lum ñu woo moom lum la loo ko woo moom nee dina la wuy si nee loolu nga bàyyi ko xel bu a baax faal nee na loo ko woo faal dana la si wuy si de te nee na xam na dina yaatu lool faal nee na liggéey bi nag moom nee moo ngi ciy kontaan bu baax ndax xam na ni lii nee ñoom ñëpp lañ koy defal nee na waxul xeeti parfum yañ fay yóbbu waaye mbaar yooyu nga xam ne moom lañ fa def nee na ñoom ñii lañ ko defal ndax ku fa dem fekk mu tiim seen waajur ya te xam naa looloo te nee na xam naa loolu it li mu wax léegi man am naa ci wax léegi moom mii am na ci ak firnde ndax ñu bëri yàgg nañ koo bëgg a def nee ndax ñu bëri yàgg nañ koo bëgg a def waa am loo xamante nag waaye nee am loo xam ne daa am ñu ko suñu borom jagleel nee na gëm na ni ñun la ko suñu borom jagleel nee na moo tax waa daara bi def ko nee na ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax nee di xeeb bu baax a baax ñëwin wi commencement la xam ne ab commencement la rek. waaye nag na noonu ko tàbbal ci biir liggéey bi Fall. xam nañ daal ñu ngi ci biir biir. waaw nee ñoom ñoo ci biir liggéey bi. nee na ñoo bu baax. nee dañuy sant rek. di sant ñëpp rek Fall. jërëjëf Fall Ndiaga jërëjëf. jërëjëf Fall. fond la woon yoo xam ne bi ñuy dem gars yi sax dañ ñëwoon nañ ko jaar jaar jox ñi kilifa yi ma leen de moom lépp rek moom day continuer ci barab ba. waaw ndax ñun loolu rek mooy li ñor te parfum bañ ko yóbbeeg léegi mi ngi bëgg a def diir ay boobaak léegi saa su ma woowee si Moustapha Mbodj laaj ndax parfum bi jeex na mu ne ma des na kon mel na ni tamit yaakaar naa ne loolu tax naa am solo loolu ndax boo boo téewoon biteel bi nii boo ko téye boo bëggoo téew xet gi mu lay sànni rek da xam ne lii maanaam ak ak ak njëg lay jar waaye Cheikh Ibra ëpp na loolu ci liñ koy jëfal defuñ ko ngir gis ci suñ bopp duñ ci dara. mënuñ koo defal loo xam dañ ko koy defal ba ba doon ci dara ndax ma nga ne tëdd feete moo ñu dàq jëf fuuf at mu jot la ñuy jëlee ci ab barabam di ko yóbbu yóbbul sëñ Tuubaa ku ne xam na te waxoon waxoon na ko sëñ Saaliw waaw kon tawfeex jooju mu am noonu amuñ ko waaye dañuy góorgóorlu rek ak amuk bëgg akuk jaayante ba lu dégg rek ci maam wala ñu dégg ci lu baax rek ñu fexe faa sof suñ jëf ku ñu gis tamit ba te xeemeem la ci ni yow sëriñ bi rek la ñor lu ñuy def lu mel ni lii dinañ la ci woo ndax lii woote wuñ ko benn yoon woote wuñ ko ñaari woote nañ koy yoon yoon te jëf ji ñuy jëf boo xoolee ci personne bi nga xam ñoo koy def ndax boo xoolee fi ne ñi bokk ci daare boo boo tuddee simé tudd kii tudd ma daanaka jigéen ñaar nga ci tegaat ñoo fi ne gisaatoo fi keneen am nañu ci bokk de waaye pas-pas ga pas-pas gi ñu war a liggéey bi moo des waaw waaye nag maa ngi daggaanaat bu baax baax di wax ne tey jii dañuy fàttaliku sunu waajur bu baax te desan ci xel ko muy Serigne Cheikh Fall Khady liggéey damaa toog léegi sama xel nii yar ci moom maa ngi sàkku ñu ñaan suñu borom dolli koy leer ak xewal fa mu ne waaye di sàkkul ñaan tamit maam Lamp Fall moom sëñ Saliou mi nga xam ni moom la ñaan di liggéey liggéey bi nga xam ne fee mu ne ca Italie sagom bawu ko fa daa ne di topp wéram ñoo ngi sàkku ci murid yi ñu dolli ko ñaanal saa borom defal ko wér